ci wàllu actualité politique nag d' accord ñun président mouvement alliance wàllu askan yi ñoo jëloon décision tabbu président Macky Sall pour mu nekk suñu mbër ci élection présidentielle loolu yàlla def na le président de la république jël na décision ni moom demul motivé ko ci ay kàddoom ak jikkoom ak jaar loo xam ni décision personnel la mu nangu ko am na ñu ko ñaanaloon moom mu jël loolu dañ koy bàyyeeg moom waaye sañ nga nag boo amulee mbër ba nga yaakaaroo mu dem sañ ngaa fuddee ko yow bokk ci làng damay bëre bu dee pour nekk candidat la élection présidentielle man naa bokk mais damaa yàqamtuwul damaa bëgg a mbapat mën naa ko ndax ñi ma sës ci man xam nan la ma man ak la mu mën billaahi wallaahi watallaahi bu campagne présidentielle jotoon ba bëgg ko ci dem mën naa cee alal bu toll nii ñu ko ciy def di gañe def waaye dafa jot président Macky Sall dafa gëm ni waroo dem mais man damaa gëm ni dafa jot te bu jotee yomb di nan laa war a doxale investir naa président Macky Sall ba pare kon mënuma investir ak keneen kama gën ni ko maa ngi ñëw fekk la gànnaan jóg ba ma koy def loolu dama ko bind lettre motiver lettre bi wax ko lan moo tax président Macky Sall ma bëgg laa tànn ak li tax ma bëgg def investiture bi bu boobaa di nga am yow loo ñu xam bu bind ko def ko la ca génn ban ca pare dama ko bindaat notifié waat wax ko ko lii laa ci bëggoon lii laa ci am nit da def rek joxe bàyyi nit ko bu ma nee ko maa ngi ñëw gànnaar fekk la jóge Thiès xam carburant distance bi ma war a daw fii ba gànnaar oto bi ma yor ñaata laa ci war a def ci carburant damaa war a def loolu xam damay yegg ak bu may retourné mais su ma demee ba ni maa dem eh, da kii Ghana yegg Ghana dina ma nga Maroc mais su ma toppee désert bi dem Maroc mais du ma retourné du ma ñëwaat parce que sama essence sama carburant maa ngi ko programmé woon dem Ghana jël si kees kon du ma jël ñàll bi di jël désert bi di dem ba ba ba ba ba kii du ko def loolu dégg-dégg la laaj. wutiwaat mbër. déedéet soo ko defee sax ñu rey la nan ngay di ko mbër ko jat di ko jat di ko jat fan yi day waaj a la sa mbër am na a trop trop blessé na wala dara nga naan amee wutwaay man ndax temps d'entraînement xaju temps bi xaju fi man damay politique nee naa la politique président Ablaye Wade ko moom moo ko man taalisi la ñaareel leen Macky ñetteel leen man ma doon apprenti ba doon seen ndongo daal ñu ni nag danoo toj fenn ci politique tooñu dal dara ay erreur rek la ñuy def mais ñooñu ma xam ñooñu ma cité saa yu tegee pexe politique ñëpp xam ne teg na ko looloo tax may wax ni man je suis patron politique de Thiès Nord fii maa fi man ci na waxuma du ma juum de waaye ku ma xale ci politique ak ni ma koy doxalee façon yi bokkul ak jamono yi may yëngu moment bu kenn mënul comme ni ko waxee rek ca laa yëngu li docteur def ko yooni foofu saa ci nekkee politique du la jaaxal donc ci tënk du ma jël ñal yi waaye booy xelal njiitum réew pour moi si le patron de la coalition ne veut pas participer aux élections si le patron de la coalition n'est pas candidat si le doyen de la coalition n'est pas n'est parce que il est empêché par la limite d'âge ce qui est logique s'il un chef ça doit être le chef booy xelal njiitum réew doo ko jóg naan ko bàyyi naa la kontaan na moom laa àndal kooku jàppale woo ko kilifa kenn du ko def noonu da nga koy motiver ni ko léeg léeg léeg laa xalaat yow loo ci xalaat décision bu mujj bi yow man du ma bokk ci naan bàyyi naa président Macky Sall ku mu tànn baax na man du ma doxe noonu moo doonal sama mbër bokkul dama koy xelal pour mu wér pour man boo àndee nit war koo bëreloo mu am tolof tolof tànk ba mu am blessure ci entraînement ya da ngay seet noo ko pour que mu wér a taxawal pour man la non participation du président Macky Sall à élection présidentielle c' est une blessure c' politique de la coalition Benno Siggil Sénégal et il faut passe cette blessure pour man si le patron de la coalition muy président Macky Sall bokkul parce que moo ko décidé si le doyen qui est Moustapha Niass mënul bokk parce que limite d'âge bi la mais s'il y un chef de la coalition c'est qui le chef c'est le plan A et B voire C dégg la laaj ndax boo ñëwee daan ni damay dem war a pare 2024 man ma war a jóg man mii président la république tabb gouvernement de combat pour li fi des ma rafetal mais xanaa kay li ci des lay rafetal nga xool ay nit jël ay critères ñi def ay ministres yi kenn ko ci ne Pape Amadou Ndiaye ba ma koy jël critère bii la dafa bokk c'est nga ne ba nga jël Ranko Badiatara c'est un combattant ba nga jël Aly Ngouille Ndiaye c'est un combattant ba ngay jël. Euh, Abdoulaye Sow c'est un combattant ba ngay jël Victorine Ndeye c'est une combattante mais si je choisis le chef des combattants muy le premier ministre Amadou Ba qui chef du gouvernement qui chef dans la coalition si le plan A et B c'est Amadou le plan Ba pour man le plan C c'est le chef du gouvernement c'est ça la logique politique naturellement ça doit passer comme ça naturellement ça doit se passer comme ça. Si le patron est empêché, le doyen est empêché, c'est le chef qui doit prendre. loolu mooy logique. kon tous les Sénégalais dañoo war a préparer wu dans à ça ba gis leneen lii problème mooy bu nekkal lay jël nga ne damaa bëgg a dem damaa bëgg a liggéey nga jël kenn ko yaay sama ministre yaay sama jëwriñu ministre yow loolu koo kooku nga jël ba nga koy tànn da ngaa tànnandoo ay nit ña nga ko tànnandoo am ngay critère yoon teg daal ni lii lii moo tax ma jël ko critères yooyu dara changé wu ci bopp ba tey ndax bu changé woon ñu wàcc ko premier ministre kon damay jàpp ni loolu da nga koy da nga koy da baaxal di ko wax di ko analyser di ko teg c'est une réalité sociologique au Sénégal ngay da koy wax pour que kilifa gi jéem ko xam ndax léppoon mooy tey boo fi waxoon tey lu ñaaw président Macky Sall wala nga wax ko kilifa benn réew fii wala benn armée bi wala nga wax ko police tey jii ñu boole la moom tey doo faral mais boo ko waxalee lu baax tey sénégalais bi ci jóg moom du ci jóg da ngay xelal njiitum réew pour man critères yi taxoon ñu changé ñu teg premier ministre ba tànn ko bàyyi fi ñeneen ñi ñooñu ñii xëccoo naa man laa du man koo turma leen de mais da nga war a xam ni critères yooyu changé wuñu kon ñooñu critères yoo na éliminé yooyu man na leen a éliminé waat ba du nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar xaw ma jigéen ñi ñu may dégg xaw ma ñu ma maanaam ni nga saytoo ba tànn kenn ñu ko yaay yaay nekk yaay jiite ministre yi boobu at ba léegi muy liggéey te dara changé wu fi bu nu waaye tànn ak kenn ku jiite réew mi te moom mënul bokk moom warul weddi boppam le président Macky Sall logique bi mu toppoon bari dama waxoon ni du ma bokkaat te am na lu may bañ te sama kàddu jiitu na ma kon maanaam. yéenam ci Sénégal ba tax mu ni gouvernement de combat moo nekk nii lii laay defet ba bu may ñëw 2024 day defet ndax ak ki ma ñi ma jiital wóor na ma kon buy def bu tànnee leneen lu dul loolu man looloo may jaaxal man man fu ne nii bala maa mën a réfléchir mu tànn keneen ku dul ministre premier ministre premier ministre musuma koo gis suma koo jox loxo foofu la su ko defee logique yooyu dafay baax ñu koy fàttali léeg-léeg mais tey li baax te logique mooy boo àndee ku mel ni docteur Djibi Sarr bu doon ku baax doon ku wér ku nangam da ñëw nga ànd ak moom wan waa Thiès wan waa Sénégal ñu ko mi nii su ma sañoon su ma sañoon waa Thiès gën koo jàpp gën ko fonk kii day ku baax la jërë ngeen jëf Thank you.